Niass jël na doomam ji dippee ko Cheikh Ahmadou Bamba Niass. loolu li mu tekki xam nañu ko. nee na loolu la. nee na Serigne Touba Serigne Touba ñëpp la. catholique yi sax dañ ciy jëriñ. nee na catholique yi sax dañ ciy jëriñ. te loolu Senghor du ko weddi. te loolu Senghor du ko weddi. tijaan yi dañ koy ci jëriñu. nee na tijaan yi dañ ciy jëriñu. te loolu Abdou Diouf du ko weddi. te loolu Abdou Diouf du ko weddi. Mm-hmm. murid dañ ciy jëriñu. nee na murid dañ ciy jëriñu. loolu Ablaye Wade ak Macky Sall duñ ko weddi. loolu Ablaye Wade ak Macky Sall duñ ko weddi. kon nag. nee na kon. alal yi ñëpp. alal yi ñëpp. ñëpp dañ cee am fulla. ñëpp dañ cee am fulla. bés bu ne ma wax leen ni leen. bés bu ne ma wax leen ni leen. ñàkk fayda. ñàkk fayda. paasewul. passé wul. lu bi day ngiriir. nga loolu jaaduwul. loolu jaaduwul ndax kat. ñeena ndax kat. sëñ bi natt ko ci kaar bi rek. nee na sëñ bi natt ko ci kaar bi rek de. kaar bi xamul ku yor bii. nee na kaar bi moom xamul ku yor bii. ku dugg rek la xam. ku dugg rek la xam. waaye ku dugg mu yóbbu. waaye ku dugg mu yóbbu. te am na tijaan yoo xam ni. nee na am na tijaan yoo xam ni. sëñ Touba. sëñ Touba. moo leen gënal. moo leen gënal. seen ndey. seen ndey. seen baay. ak seen baay. seen jabar. ak seen jabar. ak seen doom. ak seen doom. ak seen lépp. ak seen lépp. Mm-hmm. wax nga dëgg. te ña ko defoon ci jëmmi jamono. te ña ko defoon ci jëmmi jamono. ba ñu ñëwee jébbalu ci moom. ba ñu ñëwee jébbalu ci moom. mu ne leen tijaan googu bu leen ko bàyyi. mu ne leen tijaan googu bu leen ko bàyyi. sëñ Basiiru sunu baay. sëñ Basiiru sunu baay Xaadimu Rasuul. bind na. bind na. ci téere bu tudd. ci téere bu tudd. Minanul Baaxil Xadiim. Baaxil Xadiim. Isaaxa doom ju baax ji moo ko def. nee na moo ko toppaat. nee na sëñ Isaaxa doom ju baax ji toog moo ko toppatoo. mën du ci bind ni. wax na ci ni. baayam. baayam. da daan yónni taalibe bu ñuy wax Thierno Kandji. da daan yónni taalibe bu ñuy wax Thierno Kandji. ca Njaareem. ca Njaareem. muy wër di tëgg tabala. muy wër tëgg tabala. ni sëriñ bi. ni sëriñ bi. tiijaan bu fi ne tiijaan bu fi ne nan ko fa fekk timis nan ko fekk timis ngeen bokk wasif ngeen bokk wasif mu wax ca téere ba ne mu wax ca téere ba ni mbubu wasifa ba mbubu wasifa daan fóotal boppam moo ko daan fóotal yu neex di ca def xet bu neex bind na it bind na xale maam gu baax gi ne radiya anni sibtu ka tijaani waaw waaw def na tawasul ci Cheikh Tidiane def na tawasul tudd ca téeréem baax ca Masaalikul Jinaan kon nag kon nag damaa bëgg damaa bëgg ñi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo bëgg ngeen tardé dañoo bëgg ngeen tardé ci sëriñ bi ci sëriñ bi ba am na ci kër yoo xam ne sax ba am na ci kër yoo xam ne sax boo fa tuddee tur woowu bu fa tuddee tur woowu ñu joxañ leen ne bu ko tuddati ñu joxañ leen bu ko tuddati ñun nag ñu bëgg ñun ñu bëgg bés bu ne bés bu ne ñu xëy tudd ko ñu xëy tudd ko bëccëg ñu tudd ko bëccëg tudd ko ngoon ñu tudd ko ngoon tudd ko te mbokk ñi nga xam ne boo lëggee boo lii mooy liy firndeel bëgg gi mu bëgg Cheikhul Khadim ba di ko fësal fépp nee na boo fi gisaan ci dëkk bi ku ñu tuddee Serigne Touba ku ñu tuddee Serigne la mbaa muy mbokkam. waaye Serigne Touba. waaye Serigne Touba. islam yëpp ko ameel bor. gàcce yi fi faj. nee na gàcce yi fi faj. fetal mënu ko. fetal. fetal ko. fetal mënu jaasi mënu jaasi mënu ay xeer mënu jaamaar nante ko. jaamaar

لا سأب لا خادم الرسول شيخنا بن نسيب بن ربا دنيا وأخرى إسمة وخير رسول صلى على خير النبي خاد الورى من الدبي يا من تفعل